yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa su borom teggal ma ko ci darajee Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne mooy lépp di siyaare mbokk yi nga xam ne ñoom lañuy wettalanteel ci bis bi lu nekk di siyaare sëñ Mamour Mbacké ne ñu ci barab bi ak sëñ Maodo ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak mbokk yi fi nekk yépp noo ngi leen di nuyu nuyu jullit te di tibb nuyoo bi ci sunu jëmm mu yàlla ak seeni jëmmoo genre si ñi ko ma mbay mi nga xam ne yàlla boole nanu kóllëre gu yàgg nuy àndante bis bii te rafet ànd nag bu yàggee yàlla rek a ko lal ndax yàlla mooy li nu boole ak Cheikh Ahmadou bamb mi nga xam ne du jeex ba mukk at mu nekk ñu di ko àndante mu mu sedd nu ci ab cër ma sant ko ci lool lool ndax dañoo xam ne ku ko sedd nit ci jëmbam rek bàyyi nga ko xel te bis bi sedd nu ci suñ jëmm ndax saa bu jotee noo koy àndante ba keroog fu bis bi yam nag sant naa ci yàlla bu baax a baax ci cër boobu nga xam ne jox naa nañu ko ci te waxtu bu ne mu di ko yokk man damay far di wax ne mag moom dara jaam lool ca yokk xam na ko waaye loo ci wàññi xam na ko mun nag ba ñu tàmbalee àndante bi si bën a gën yi waxtu wu ne lim nu ci jox mi ngi koy gën di yokk te di ko dundal kon loolu mooy yàlla rek moo nu boole ak Seexuna di ko ci ñaanal su borom dajal ko ci tawfeex mu daj ci ngërëmul sa Sam Mbay ñu koy defal daj ci tawfeexam muy bis bu wëloore bés xam ne diinee ko lal ak baax moo lal bés bii boo tax bés moom jomb la waaye nag am na ci bés yu jafe ndax bés am na ci bés yoo xam ne yàlla rek ko lal ndax mag mu baax mu am ngërëmal boroomam moo ko daan def si fii di Cheikh Ahmadou Mbaye mi wayjuru sëriñ saa mbay radiallahu anhuma dan jóge ca barabam ba ca Louga di ñëw ci barab bi di fi fekk si Cheikh Ahmadou Mbaye mi doon borom barab bi ñuy dundal seenu bokk yëf ya di dox ba moom Cheikh Ahmadou Mbaye wuy ci boromam sëñ Cheikh Mbaye moomam bàyyi fi njaboot gi njaboot gi it continué di ko doxal ku nekkal sëriñ si Amadou Mbaye ñëw fii dundal loola muy dox ba sëriñ saa mbay mi ci mujj xam ne wax ne de mooy ki fi mujj ñëw ci jabootu maam si Amadou Mbaye kon mel na ne bis bi yàlla rek moo ko lal bis yu mel nii nag war nañ jànge lu bari damay wax ne roy mënut ñàkk si Cheikh Balla ma waxoon ne roy mënut ñàkk Jow Balla nee na nit mënut ñàkk ku may roy waaye dina man ñaar laa ko def Seexul Xadiim borom Daaru Muxti mënuma leen a roy nag seen nag waaye fooy toll dégg si Jow Balla baax ndax ñaari ñi mu tudd di Seex Ahmadou Bamba sëñ Maam Cerno Faati ab yaa fus du leen roy te ku leen roy baax loolu rek moo moo nu daal ci bis bii ñu nekk tey di ci fàttali ko dundum Serigne Sam mu baax moom mu nga xam ne lëggéel na diine lëggéel boroomam ba sunu boroom fay ko li ma ko faye aw turam di fi des di déel ba keroog yàlla di taxawal pincam ma waaye mel ni bis bi at mu ne dañuy tànn kenn ci mag ñi tudde ko ko ngir fàttaliku ci ak dundam akub liggéeyam mag ñi man cee xamee ndaw ñi ci mooy def at mënuñu tànn mag moo xam ne mag ñi dañ ci xane ndaw yi am lu ñu ci jànge ca dundu mag moomee ñu ko tuddee te nag ñu tànn kenn ci borom barab bii di sëñ Omar Guèye radiallahu taala anhu ñu tudde ko bis bii fàttaliku dundu Serigne Sam Mbaye Cheikh Ibrahima tànn tey sëñ Omar moom nga xam ne ndabol taraanga li ko sëñ baa defaloon ak borom saam Cheikh ma tànn ko tey ngir taaj ko fii ñépp man cee jariñoo ci dunduk sunu maam ju sell di sëñ Omar Guèye radiallahu taala ndamul taraangi li ko sëñ Tuubaa defaloon ak borom saam moom la tànn tey taj ko ci ëtt bii ngir ñi fi ñëw ñëpp mën a jariñu ci dundu maam mu baax moom nga xam ne ak dundam lépp jaaxal na ko ci boroomam jaaxal ko ci lëggéeyal sëñ sañ ak sëñ Mor Jaara bu leen di fàttali ko nag jëf yu baax ya tax ndax jëf ja ca des néew na lu ñu ciy fàttaliku nit ñuy bëgg a fàttalikoo bi Sëñ Omar amoon na jikko yu baax melokaan yu baax yu newoon ci moom yoo xam ne bu ñu ko waxtaanee nit ñi danañ ci mën a roy man cee jànge ba ku fi jógee am loo yóbbuloo ci sa dund ba bañ fee dajawaat déwén bu nu yàlla mayee dund ga li tax waxtaanee rek am solo it mooy yi ñu royee ci ñoom mooy ndax jamono dafa dafa dafa jaxasoo fi mu ne ba leerax bari liñ duufal te duufut bari yiñ fi bàyyi bari kon jamono danay laaj léeg-léeg ñu tànn na mag ngir nafar ak dundam ba mën caa jànge lu bari bu defee nu ndaw yi fi nekk bu ñu fi jógee tànn ca mag moom ay bind yóbbaloo ko noonu ci sunu dund donte mënuñ leen a séenit nu fexe rek ba baax te baax rek lanu nu yàllay doyee ci kaw suuf baax rek moo tax yàlla wàcc na ci suufam si te ñooñu kenn ku ñu ci roy rek ngaa baax suñu marit doonoon jàngalekatu alxuraan ak aw ñaqam yaar te nit ñi léegi <laughs> mooy dunde saw ñaq loolu ci la sëñ Omar doon jàngale alxuraan dunde aw ñaqam di bay di dundoo loolu ca nag dundam jeex moo tax dund gu sell la ndax yi mu doon critères yi mu doon liggéeyee dafa sell mooy di jàngale téeréb yàlla bi loolu rek doy na doy na doy na lu ne waaye yemu ca muy bay nag di dunde di jàngale alxuraan yarum njabootam loolu ci la dund ba wuy ji boroomam tabaraka wa taala moom Cheikh Omar Dieye radiyallahu taala bu baax bi tànn bis bi tuddee ko ko tant bi nag ko xool ni mu bindewoo da nga xam ne sëñ Omar du maam mu yafus ndax nit ku yafus mun taam tant bu toll nii tant yi nag kuñ ko tudde rek liggéey nga lii nag moo lay wanal ne Cheikh Omar Dieye liggéeyal na boroomam tabaraka taala ndax ku ñëw ci tant bi ñun la ab sëtam moo ko def da xam ne kon sëñ Omar <laughs> foo yor boppam <laughs> ndax ñi fooy woon seen bopp amuñu lu mel nii kon liggéey na yàlla barkeel na dundam barkeel liggéeyam moom Cheikh Omar Dieye mu nit ko nit nit koo xam ne bind yu bari nekk noonu ci dundam ndax doomi soxna la duñ njàngal yar wax ne de sëñ Omar Saaw moo ko jàngal alxuraan sëñ Omar Saaw fóore ju la woon dëkkoon ca Caaween di boroom xam-xam maamam ju jigéen tudd Ëstu Mbakke doomi Ibrahima Awa ca Mbakke dimbu si Mor Saaw mu baax moom nga xam ne moo doon baayu sëñ Suleymaan Saaw sëñ Omar Jéey ca moom la jànge alxuraan te li ko dëggal mooy jaxasoo woon na ak sëriñ Souleymane Saw te Souleymane Saw nit ku amoon maanaa la ndax bari na ci fóore yi ñoom jàngal sëñ Moussa Beto moo ko jàngal sëñ mu doo soo ma wax ne ma sëñ mu doo soo wax ne ma moo bay sëñ jatara daa ànd di seeti sëñ Souleymane Saw ñu ne ko nay nañ may mag ñi sées yi dëkkoon ca caaween di borom xam-xam borom bi di nitu yàlla jox soxna Sëñ Omar lool ba Sëñ Omar naw ko ba mu sàkku ci moom Sëñ Omar tuddee ko doom xalifaam bu baax bi teew ci biir baas bi sëñ Souleymane Saaw la ko tuddee ca caaween te sëñ Souleymane Saaw sëñ Mouhamadou Bousso mi doon taw sëñ Bakki Bousso dañ ko fi doon tëkkaleel ci xam-xam kon moo lay xamal ne amoon na xam-xam dafa feesoon dell moom sëñ Souleymane Sow kon mel na ni ci dégg ne képp ku am maanaa ci sunu réew mii tey nitug yàlla tey borom xam-xam jaxasoo woon nga ak borom bis bi di Cheikh Omar Dieye radiyallahu taala nga ak moom te jamono laaj ko lool nu war di leen waxtaane ngir nu man ci yóbbuloo ay bind ci sunu dund kon wax naa lañ mu baax ñi mu jaxasooloon tudd naa ci sëñ Souleymane Saw mu baax moom nga xam ne dafa jaxasoog moom te mag ñi nag la ma am dimbay sëriñ waxoon moo leen dal kuñ tudd seen der rek fonk nañ la ndax ñoom duñ tudd din ngir ay kalan duñ tudd din ngir luñ lay jox ñoom kuñ tudd seen der rek xam na lu tax la ñoom ñu yow lañ woon dañ daan tànn nit ju rafet ju baax moo tax gis nga jikkooy sëñ Souleymane Saaw la tànn man ngi alxuraan a xam-xam te mu jànge fa ba noppi mu tudde ko doom moom Cheikh Omar Dieye kon joxo sawa nag sëñ Souleymane Saaw waaye buntam ci sëñ Touba it mooy sëñ Mor Diarra sëñ Mor ko tarbiya moom la joxoon boppam sëñ Ahmadou Ndoumbe Mbakke it wala réema woon dañoo jaxasoo ca kër borom sax te sëñ Mandumbe nag ku am maanaa la comme jaxasool rek te bokkuñ ci te sëñ Mandumbe wala Omar la boo demee ci merci bi sëñ Moussa Ka def sax bi muy tudd bi sëñ Mandumbe génne àdduna bi ko sëñ Moussa di merci di wax ñi ko ñi ko eh, ñim fonkoon ba mu ci tuddee sëñ Omar Silla dana a jooyle ko Omar Silla ak Omar Masant Dieng daal di wax daal ci sëñ Moussa Ka daal teex nag wax ne. ku fonkoon sëñ Omar la daana ko may sax ay naari góor moom si Amadou Ndoumbe Mbakke ko suñu ba fonkoon na ko ndax fonk gi taxut eh, tax na eh, mu mu fonk ko ba jaxasoog moom ba di yëkkati dara di ko jëmee ci moom te sëñ Ndoumbe nag loolu kum ko defal rek am nga loo yor sëñ Ndoumbe moom du ko ndaw de sëñ Ndoumbe ak Cheikh Ibra Fall ca murid yu njëkk yi lañ bokk sëñ Amadou Ndoumbe ak Cheikh Ibra Fall kuñ ci de te sëñ Ndoumbe boobu ko ku fonkoon sëñ Omar la ba sëñ Moussa keneen daanu may sax ay naari koor kon foofu kon na ko waaye boo tànnee diggam ak sëñ Abdou Mbakke borom dër bi borom Darou Rahman waajuru sëñ Seex Darou Rahman ak sëñ Moudou Habib surtout moom dañoo jaxasoo woon lool guddi am bët surtout daana def lu jafe jóge këram di ko fekk. te defal na ko sëñ Amar lool te te sëñ Abdou Sall du woon sëriñam waaye soppee ma woon di wala réem ñu jaxasoo ba sëñ Abdou borom bi nag ko lépp lu ma bañ mu yàqu ceeb laa koy def te sëñ Abdou nag ko ndaw de ndax doom yi sëñ Tuubaa la sëñ Abdou borom dër bi ku cër la ci Seexul Xadiim te dafa jaxasoo nag sëñ Amar mii lool. boo ko dajee sax sëñ Omar njaboot gim daan am ñuy faatu sëñ bi ma soo ko wax ne ko yow da daa mel ni malakal moo tëdd laa ñemewuma àgg na àgg naag foofu moom sëñ Abdoulahi Mbakki borom dër bi wajuru soxna Maymunatu bintu sëñ Abdou borom dër bi kon ku jaxasoo nag sëñ la moom sëñ Abdou borom dër te jaxasoo gi saayir la ak batin dafa jaxasoo moom ci saayir waaye jaxasoo moom ci batin ba. sëñ Abdou xool xol bi ni mu rafeteeg li na ci moom ci jikko yu baax tax ma ne ko lépp lu ma bañ mu yàqoote ci yow nii laa koy denc kon man nga seet si Abdou borom dër bi lañ tudde bis di Cheikh Omar Dieye radiyallahu taala anhuma kon ku ku sëñ dër bi fonkoon la fonko ko ma ko fonkoon nag tax nañu jaxasoo ñoom ñaar ba seen diggante meloon ni soow ak suukar sëñ bi fonk ko lool ba mu tudde ko doom am na kenn ci njabootug sëñ Omar sëñ Abdu borom dër bi ko tuddu tudde ko boppam te nit nag su la nëwut ci deret nawloontewu leen xam nga mag ñi damay wax ne dañoo nawloonte woon nun nag dañ ñuy not léegi moo tax fi ne nun suñ mbir xaw a métti xaw fi nun gaa yi dañ ñuy not rek waaye mag ñi nag dañ doon nawloonte mag ñi dañ doon naawlante noonu na gars yi dañ ñuy not léegi <laughs> oto yi noonu suñu mbir metti yi dañ ñuy not mag ñi nag dañoo naawlante woon ci diine aku baax aku ragal yàlla ñoom si duñu ay sant de maanaam diine ku baax aku ragal yàlla ca la mag ña doon naawlante moo tax baax aku ragal yàlla ak diine ak sàmm moo tax seen ëpp du dër bi naw seen Omar ba jaxasoo moom wax na ko ci diine suñu Abdu di doomi soxna jàng alxuraan mokkal ko di jaamu yàlla dunde aw ñaqam loolu sëñ Abdu xam ko te du triser moo tax sëñ Abdu bi jaxasoo moom jaxasoo gi jaxasoo nag fenne ci njabootam ndax da daan jóge këram di ko fekk si te loolu waxuma sëñ Abdu waaye ku ko doomi si Tuubaa defal rek fonk doon te doomi ndax sëñ Blaat nee na woon ñeen fukki naari góor mooy doole wenn wàlliyu ñeen fukki wàlliyu sëñ Blaat nee na mooy doole doomi sëñ Tuubaa jigéen kon waxuñ góor ñi rawatina si yëpp Mbàkke moom nga xam ne nag Sëñ Tuubaa ko defal lépp te bokk ca gaaya gis naa ci merci ba ko Sëñ Musaa defal ndax bi ko si Musaa Ka defal ci xarnu bi bokk teg beneen merci bi ko Sëñ Musaa Ka wayoon am ci merci boo xam ne si Musaa Ka dafa wax ne bi muy ñëw adduna nag maqaama mi mu mooy ku ànd ak man du dem sawara loolu la àndaale adduna moom si Abdu borom dër bii te ma xam nga ne Sëñ Abdu borom dër bii lëggéey na ku dem Daaru Rahmaan ngee xam nga ne Sëñ Abdu lëggéeyal na Seexul Xadiim parce que du ma ko roon maay sa yaay doon sa najaay lépp si mbéy ko defal moom si yëpp borom dër bi kon nag ku mu jaxasool ba fonk na ba wax na la lépp lu ma bañ mu yàqu donte moom daraam du yàqu ci yow laa koy def kon kooku am na meloo de loolu dara tax ñu xam ne sëñ Omar fooy wut boppam te loolu ko si borom dër bi def jaxasoog moom lool. fonki ko fonkin woo xam na it da koo naw ndax naw gee tax suñu dugub dara am du yàqu waaye loolu mu ko wax day lu rëy maanaam lu ma bañ mu yàqu ci adduna ci yow laa koy denc moom Cheikh Omar Dieye ay say gars yi loolu ko si di du tuuti de ku ko doomi Sëñ Tuubaa wax ak ñoom ni ñu xool xolub nit ak ni ñu xamee nit doomi Sëñ Tuubaa yi ni ñu nit ak kuñ fonk fañ lay teg te loolu yi la Dër bi wax fonkeel gi. tax mu jaxasoog moom di dem këram sëñ Amar di ñëw këram ñu jaxasoo jaxasoo boo xam ne ñi miin Daaru Rahmaan te xam ndox ko xamoon nañu diggante sëñ Abdu borom dër bi ak Cheikh Omar Dieye radiyallahu taala anhu kon bu jaxasoo nag sëñ rek yem ca baaxoon na waaye sëñ mënu benn ak képp ku fi tekki dara ci mag ñi ne woon ci dëkk bii doomi sëñ Tuubaa yeeg ñi fi baaxoon ñëpp sëñ Omar jaxasoo woon na ak ñoom kon sëñ Omar la géy na luñ fiy jànge nag ci dundug ñooñu mooy li ñu am ay kalaa mayu leen ko kalaa yi nag moo bari <laughs> kalaa ak a bari <laughs> gaa yi palaa lañuy dox de te palaa nag ak pësteef Cheikh Abdoulaye Mbacke nee na sëñ Tuubaa xàmmee na ko palaa ak pësteef sëñ Tuubaa xàmmee na ko sëñ Tuubaa dina sëñ Tuubaa loo dof dof du la nax loo yow mënoo koo nax kenn mënut a nax sëñ Tuubaa fi ne yéewu gi gars yi def ak jéem a nax sëñ beeg jaay sëñ bi mu ak daara du sotti de sëñ Tuubaa kenn mënu koo nax du nax kenn nag fi ne mën naa bañ sax kenn di ko nax du nax mën nay naxe te kenn du ko nax waaye gis nga yi mboole du nax kenn kenn mënut a nax Cheikhuna Ahmad al Khadim radiyallahu taala anhu sëñ bay jaxate ne da woon sëriñ bi day yëri xol mënii fu koo jommal ba am ngërëmam <laughs> kon jommal gee bari loolu ma xamal sëñ Tuubaa kenn mënu koo jamal fi ne mag ñi mu defar kenn ku ne la la sëñ Tuubaa defal yelloo nga ko ndax ci xaw a dee la ko joxe sëñ Tuubaa muy gaa yi dara de <laughs> mag ñi ci xaw a dee la ñu de léegi nag palaa yi moo bari palaat positif nag bu naajee nga koy xàmmee palaat positif bu naajee nga koy xàmmee fi ne gaa yi dañuy def positif ku róole ko palan jàpp ni sëñ Tuubaa mu xàmmi na ko <laughs> moo bari léegi moo tax fi ne dara mënut a fi ne baat bii baat bii gaa yi xewal léegi diw day dóor ba ma meeg léegi lu baax li day bëgg a jeex fi ne loo defal ni sax gaa yi naa ay dóor rek waaye ñëpp xanaa dóor ñu xanaa ñëpp ni wuñ ciy dóor a bari léegi loo gaa dóor waaye xam ne dóoruñ nag am na ñuy dóor nag am na ñoo xam ne ñoom ciy dóor lañ na de waaye am na ñu ni wut ciy dóor de gaa yi loo xam ñu ne ay dóor la waaw ginnaaw lépp ay dóor la kon fuñ jëm kon si duman naxut kenn waaye kenn naxu ko kon si ñaar boobu noonu la meloon ak Cheikh Omar Dieye radiyallahu taala anhu mu saxoon fii nag di jàngale alquran di bay di dunde yàlla tànnal koy njaboot bu baax damay wax sëñ Omar li ma tegtaloo ci moom waxutul ci moom dara ci génn jëf sëñ maam góor doy na ca misaal du ca tànn sëñ maam góor rek ci jaboot gi waaye ñëpp a baax koo ci jaxasoo rek xam ne ku baax la te def nag euh, yëf du ñàkk ci la leen yar si maam góor moom damay wax ne damaa wax léegi sax de xam naa sëñ Omar da ko mag waaye maam góor de jàmbaar la de <laughs> fii la dafa tay lépp lu doon mooy nit ak baax lu ne def na ko ci waaw sëñ maam góor ku baax la ku jëf lu baax la moom it gis nga li ko sëñ Omar yare woon jàngale alxuraan ak mbay ca la sax ba dunda bëgg a jeex moom sëñ moom sëñ moom sëñ maam góor sëñ maam góor rek fi na doyoon na message ci sëñ sëñ Omar sëñ Omar nag jabatam gépp a baax de ndax ñëpp yar na leen jàngal na leen te kon lim ci jub ñu ne ca lam leen yare woon it ca lañ ne njabootam gu jigéen gi gis nga ko kenn ku ci nekk fañ la yóbbu woon nga di fa wuti yàlla it am nga fa loo xam ne ñëpp mën a caa teg bët te loola moo waral tant bii loola waral tant bii njabootam gu gi kenn ku fa wuti yàlla la nga que yi te loolu moo ndax soxna may mi wajuru sëñ Ibrahima doomi sëñ Omar moomoo kon ku am sët mel nii mu mokkal alxuraan am xam-xam def tànt bu toll nii yow la nga jëfal yàlla nangu na kon suñu mot fayut boppam si Ibrahima nag dama koy wax ne ko yow dafa am lu nu séq lu jafe yow yi la yàlla tànnal jumbut yi la yàlla tànnal yombut ami maam ñëpp mokkal alxuraan nga xam ne baay daara maam daara najaay daara yow sa lépp daa alxuraan tay loolu ku ko yàlla def di seen tu la dara de loolu ku ko yàlla def dara duutu duuf si sa bët maanaam sa bët bii dara duutu duuf ci yow loolu ko su moroom defal sa maam yëpp mokkal alxuraan di ko jàngale diine jëmu leen te nit ñi fi nekkoo koo ci tudd ñeenti maamam dugg lu kenn mënta nettali yow nga am maam yoo xam ne est-ce que Seexu Mbay mi ne woon fii diine jëmu ko jàngale alxuraan ak may ci la jeexal dundam nga loolu taxoon ba ko xamoon di ko fekk si fii. loolu di dund bañ tànn tey maam mu sell mii di sëñ Omar nga xam ne jàngale alxuraan ak mbay jaxasoog si yëpp du borom dër bi loolu la fi nekk ba dem dem bu soobee fekk sëñ Mor Jaara te pavillon bi njëkk tiim sëñ Mor jaar moo ko lëggéey say loolu tuuti wut bi njëkk tiim sëñ Mor Jaara borom penc mii ñuy fàttaliku tey mooy ki ko lëggéey di Cheikh Omar Diop bi dejee sëñ Mor Jaara fii mu wéet lam ca wax mooy wëri su ko bàyyi nii rek da di ànd ak mbokkam ma sëñ galay sëy liggéey ab pavillon indi sampal ko borom saam ma Omar Dieye loolu defal na ko sëñ Mor Diarra loolu rek asaru amma mu def ab pavillon te loola gis nga léegi nag la pavillon yi bari waaye xoola ba mu koy def mu sampal borom sam ab pavillon ndax sëñ Mor Diarra moo doon buntam ci sëñ Touba bi bi sëñ Mor jaari jógee it muy mag sëñ Mor soxna la àndal bi mu fi jógee sëñ Baara Xuraja moom sëñ Mor Diarra yàlla fayeeku sët yu baax yi nag nga xam ne jàngale alxuraan ak jub ak lëggéey ak maanu rek lañ leen xamee mag ñu sooyul maam mu mel nii nag ku ko am danga am jom di su la digg ci dara luñ la seen sax war ngaa freiné ma tax naa leen gone yi léeg-léeg war nañu amee freiné de ba may maam mu mel nii mu defal lii yàlla defal lii sëñ Tuubaa baax lu ne mu def ko fuñ ko tu ñu ne eskay war ngay freiné léeg-léeg yow it di natt sa bopp. di feree gone loolu de de na mi feree ci mag ñi de sama rey saa maam nga na dugg ci lu nëndu feree del na amar de niwtoon ci lii <laughs> jàngale alxuraan ak mbay <laughs> ci la dundam jeex si amar ji yàlla yàlla fayal na ko ku ñëw ci tant bi rek seetal bi da xam ne mag mi fooyul boppam ku ñëw ci tant bi da xam ne mag mi fooyul boppam ñam doon liggéeyal fay nañ ko kon maam yu baax day tax baax fi ne léeg-léeg na nga dégg ku naa la ah maam yu baax amul solo ak am solo maam mu baaxee loolu fi ne boo baaxee am maam mu baax loolu day yokk jot yaa ko tane ku ko maamum di fut fi ne léeg-léeg nga dégg ku naan maam yi jër da waxtaan ma ne maam yi bu leen waxtaanee ku ñuy waxtaanee lu fi ne mag ñee nun nun su lee gunub sëb te fi ne mag ñi kat bu ñu leen waxtaanee nun ñii dañoo war a tiit de ndax noo ngi leen dëpp ci Cheikh Omar fi ne boo seetoon lim dund nun ñii noo koy bëgg a xaw a jege noo koy bëgg a xaw a jege te nu mun nu su sëpp lu dul ay wax nun moom damaa ragal dañ fee nar di wax di wax bañ na cas na leen kaay toog nga ma doon sulib sëpp mag ñi nekk wuñ fi woon ay wax jëf rek loolu lañ leen yàlla faye bis yi tey di tànn bii di ko defal Serigne Sam Mbaye tuddi ko Cheikh Omar mu baax moomee waaye ñu dara jaale ku sëñ Mor Mbakke mu baax mii nga xam ne moo sëñ Ibrahima dañoo jaxasoo lool muy sëtub sëñ Thierno sa mii sëñ Tuubaa boole woon ak borom Daarul Muxti maam Thierno Ibrahima sa sëñ fa lu ma saa ko sabaay biñ ma jëmee moom la wéeru <laughs> leneen la de sëñ fa lu waxoon doomam kenn ci sëñ doomi sëñ Thierno Issa lu ko sëñ fa lu waxoon ne ko ma jëmee ca Badar ci moom la wéeru Badar nag da ngay lim ña fa demoon de Badar. ñi ma ci gëstu ci mag ñi ñi demoon Badar ñii laa ci xam Cheikh Ibra Fall sëñ Dame Abdourahman Lo sëñ Gumbu Sàll sëñ Cerno Isa bay Cerno Sàll moom jëbbu sëñ Moodu Mbóoj daam lu nag Cheikh Ibra Fall sëñ Moodu kër bu mu juddoo daa indaale léget mag ñi di ko wax ko yaa mën a noppalante ñu wax ko Cheikh Ibra leen Ahmadu Mbooja Badar la ko dalee la ibra jaam ñi yaay seen borom laa ilaaha illallah laa moo tax suñ ceer nooy sa keroog bi mu faatoo borom daaru mu denc ni mu koy indil de moom ca daaru mawti da kër bi ñu koy indi daaru mawti denc ko la maam ceer ne alhamdulilah sant naa yàlla ginnaaw ceer nooy sa ñëw na fi maam loolu sëñ Tuubaa leen boole woon loolu ma gisee ba di ko wax mooy ku am maam yu mel noonu ndax buñ ñëwee ci tant bu tul nii ne ku ñu ko tuddee ñu ne sëñ Omar ñu ne ku ko dara jaale ñu ne sëñ Mor nga ne koy sëñ Mor war nañoo xam kuy sëñ Mor loolu ci baax bi boo ko boo bis ku fa ñëw war naa xam ku mu ndax xam ku tax ku ne man jaaro yi kon mag ñi jàmbaar lañ yi nag day tax a fonkal ndax sëñ Mor ak sëñ Ibrahima mii xasidee leen boole mu di ko jàngal xasida ba jikkoom doy ko sëñ Mor di nit ku baax di taalibe sëñ Ibrahima tànn bis bi tey dara jaale ko ko ngir jëmmi Seexul Xadim ji di ko maamam mii nag maam mu mel nii di Cheikh Omar mii nga xam ne jëfal na yàlla jëf ju rëy lii ku fi ñëw rek da xam ne sëñ Omar fooyul boppam rek dana boppam ndax bu fooyoon boppam du am lii mu am. ñooñu nag buñ leen di waxtaanee xéewali yàlla yi day wàcc sikru saalihiin tanzilu rahma buñ leen di waxtaanee xéewali day wàcc ndax sankuñu seen dundu seen dundu gépp jeexal lañ ko ci seen borom tabaaraka wa taala kon kay gars yi nañ góorgóorluwaat te rëy ci dunduk sunu mag ñooñu la sëñ Malick Basine si waxoon nag yàlla bom nu daal sëñ Malick Basine si dana woon ah, de da waroo jeen noonu nee nag ñun ñi sëñ Tuubaa defar dañ naa nu moom ngeen ñu ne duñ ko yéen nag da ngeen naa moom ngeen te ngeen ko te leen du ngeen ko ngeen naan si Malick Basine kon penc yi ku fi ñëw da nga xam ne mag ngi la génne damay wax ne dafa am penc yoo xam ne fi ne penc ñaanu la waxoon naa ko ci pencum sëñ Omar Diop ma na leen penc mii pencum ñaanu la suuf si sax ku fa tibb ñaan ci barkeb sëñ Omar su ma rafet ndax mag ñi dañoo jëfal sëñ Tuubaa de fi ne mag ñi gone yi leen xamut waaye fi ne ñooñu seen liggéey du hasard fi ne penc mii penc mii may waxtaanee sëñ Omar te sëñ Cheikh Mbaye newoon fi maam Cheikh Amadou Mbaye di ko fekk nga xam ne suuf si daal saf sapp ak alxuraan ndax fii daara la sëñ Mbàkke Ramata ngi fii yoroon daar di jàngale alxuraan di bay di dunde Baye Touba Mbaye ne fii di jàngale alxuraan di bay di dunde sëñ maam góor ne fee di jàngale alxuraan di bay di dunde ñu seq penc meeg jàkk ji kon suuf si suufi alxuraan la ku fi ñëw loo fi ñaan bu sa xol sellee yàlla def ko ci dara jëy mag ñu baax ñooñu kon mag ñooñu lëggeel nañ yàlla ndax fii kat ay daara fi neen sëñ Mbàkke Ramata alxuraan la doon jàngale di bay rogante gi def jumaa di ci julli ba nëb teen Baay Tuubaa Mbay ne fii di bay di dundee di jàngale alxuraan ba dundam jeex si maam Ngor ne di jàngale alxuraan si maam Ngor moom waxumal sax jàngale alxuraan waaye nga gër nga dem ci marché ba ba gis ko fi de bu nooree mi ngi ci këram di julli si su nawetee ma nga ndokk su nawet jeexee mu del si këram toog jàpp boppam ñoon ci loolu lu ñu dund ba faatu kon pinc mii di mbayeen ak njaayeen ak pincum sëñ Omar mais ak ngatara pinc yàlla lañ mag ñu saf yàllaa fa nen ma wax ko tey pinc yii may tudd pinc yii pinc yi saf yàlla lañ de te ñoom ñëpp nag dañoo boole woon nangul maam Mor Jaara maam boroom saam si bala jasara ma wax ne ma mboolee mag ñi fi neen ku ci den tukki sax dangay ngay taggu borom saam da nga ne borom saam ci laa bëgg a dikk ngir gaa yi xam kuy maam boroom saam te Mbàkke dañoo war a xam kuy borom saam waaye ñu fi jóge di wuti ndom ba fu ne Casamance maam borom saam la gën a gaawe ñu ngi nii maam borom saam la gën a gaawe sëñ Basiiru Cissé ma ko nattali moom sëñ Mor Mbay Cissé maa ko laaj ci jumaa ji moom sëñ Basiiru Cissé siyaar bii nga defal borom saam lu ko sabab ndax man lu ma gis te xuuma ko daa koy laaj ngir ma am ca xam-xam ginnaaw dama de wax kat damaa bëgg lu may wax di wér ginnaaw lu wér lu wér gaa yi weddi ko lu wér moom mutta wax ma tax wax ma bëgg muy wér ma laaj ko sëñ Bassirou Cissé ma damaa amoon aajo fu na ma defa ñaan ma jóge njaareem jëm ma jóge Touba jëm njaareem am lu ne ma seetal sëñ Saam ne na ma ci borom saam ñaan dellu njaareem toog fukki fan ak juróom aajo jo faju sëñ Bassirou Cissé ma ko wax moom sëñ Mor Mbaye Cissé te sëñ ma dema jur ndeyam sëñ Aara Jatara ma wax ne ma sëñ Abdou borom dër bi am na fanweeri at ajjuma june siyaare ji ne maam borom saam noonu noo ngi dëkk fii kat ajjuma yi jot nuy teggi dem fu ne sëñ Abdou borom dër bi sëñ Aara Jatara nee na ma ajjuma june saxaloon na dana siyaare ji maam borom saam moom sëñ Abdou borom dër bi fanweeri at ajjuma june mu jógee Daaru Raxmaan ñëw ci xabru borom saam siyaare ko saam ba ñëw mbusoo bi kër sëñ Abdou Wadoot mu dëppaat dellu mbusoobe bi mu dell see la na sëñ mbusoobee ma doon woo na ma da ngay ñëw fi borom saam te doo agsi fi man waaye gars yooyu nopp foor de da ñëw fi ñëw fi borom saam te doo agsi fi man sëñ mbusoobee ko wax sëñ Abdu borom dër bi donc sëñ dem na lu yàgg nag sëñ bi fonkoon Mbàkke la mbooleem ñi xam dara ñépp fonk borom saam mboolem mag ñi xam dara ñëpp fonk borom saam man nee naa leen ku ma gis nga cof borom saam koo doon cof naa la man foofu laa ne de dama koy wax ñëpp di ko dégg du ma tirise man ku fi jóge yóbbul man sooy ku cof borom saam koo mën a doon cof naa la ku bëgg borom saam koo mën a doon bëgg naa la foofu laa de. man dama bëgg borom saam képp ku bëgg borom saam koo doon bëgg naa ku bañ borom saam koo doon ak loo yor ak loo mën a tudd ak loo am bañ naa la koo mën a doon ci baas bi daanu ma de ci ma laay waxe ndax man daanu yombu waaye ku bëgg borom saam bëgg naa la ku bañ borom saam bañ naa la te man nit ku ne ci borom saam laa lay natt ci sëñ Tuubaa xam naa ne ku fonk borom saam fonk ko sëñ Tuubaa ku fi teg borom saam yaa ci des. kilifa jóge na fii dem njaareem siyaare sëñ Tuubaa sëñ bi ne ko ana sëñ saam mu ne ko dama faa fàttee jaar sëñ bi ne ko dellul sëñ saam da ko ñuy teggi gaa yi nañ wiiri bi de tey jaar fi maam borom saam sëñ Tuubaa nee na maam borom saam da ko ñuy teggi moo tax ko ko teggit sa dara du dox sëñ fa loo waxoon ne dinaa moo bi taal yoonu murit ba mu leer ma ci nekk sëñ saam moo ne fu ne gaa fay wutee fiil de moo tax loo ci gis coupé ci lëndëm dynamo bi mooy borom saam nañ fay leer ji suñ ko loo ko waxtu du waxantu dynamo bi taal ni yoonu murit ba mu leer Cheikh Mouhamadul Fadal nee na ma ci néeg borom saam sëñ Mor Jaaro gis nga si ñoomar mii ko fonkoon sëñ Mor Jaar la jaxasoog moom ba léegi li ma la wax léegi na la pop yow bu ko tiim sax bi sëñ Mor Jaar demee gars yi di xoole bañ ko defar daa xaacu na nañ di wut lu tiim borom saam Cheikh Omar kon moom fonkoon na borom saam te mag ñi neen ci borom saam kenn ku ne ñetteen nga tërbiyo borom saam di dox ci siñum sàkk di naan sa taluy tàng mag ñi sëñ Tuubaa defaroon ñëpp waggaroon borom saam sëñ Mat Lamin Géey tudde na ko doom sëñ Maodo Mustafa tudde ko sëñ Mbakki Madina sëñ Saam Mbay borom bis bi maam Cheikh Amadou Mbay tëdd guddi gis maam Mor jaar mu ne ko nag ma tudde doom mu tudde ko maam borom saam sëñ Saam Mbay nag defe naa ne kenn la ci réew mi maam borom saam lañ ko tuddee maam borom saam daa àgg sax ñi ñu ko tuddee kenn du ci sooy ay mbër lañ ko tuddee kër goo dem daray maam borom saam àgg sëñ Tuubaa nee woon taal bu ma taal ma tug borom saam ne ca korotti ma tug borom saam ma fay sab taal ma taal ma tug borom saam ne ca sëñ Tuubaa nee na korotti ma saam ma fay sab taal te xoola bi ne maam borom saam li muy baax baax gis nga mag ñi fi neen maam borom saam del na fonkoon de ndax mag ñi damay wax ne la ci nawlante lañ doon dox gis nga fii ne Mamadou Serigne Ndiaye naw gi ko maam borom saam nawoon daa àggoon ci bu yoroon masaajoon maam borom saam day jóge Mbàkke xewar fekk maam borom Serigne Ndiaye te loolu gars yi ko waxtaane mais lu xew maam borom Serigne Ndiaye maam war jaar da koo ba daan dem mag ñu kuñ fokk duñ dem sa kër da daan jóge Mbàkke xewar dem Ndiayeen fekk maam borom Serigne Ndiaye maam borom Serigne Ndiaye moo daan séddale kër borom saam reer ba reer jot mu ñibbi këram moo mujj ci maam borom saam keroog ba nga ko fekk jàppukaay bi mu toog mu yër ko xam ne dem na moo ko defar ñëw ci jàkk ña leen di julli si ñu ne sëñ Amady Jatara moo doon maam yi sëñ Balla Jatara mu baax ma ci kanam Amady Kabar ñu sëlmal Mamadou Sali tolloog ñoom ne leen sun mbër mu baax mii ci biir dogal bi yàlla daa wàcc ci moom. Baye ma Lamine Thiam ñoom yuuxu sëpp jaleñ ne dutuma julli seeti juma juma sëñ Mor Jaar wututu ñëw te li sëñ Tuubaa wax ci borom saam bi mu demee wax ko ci kenn ñeen fukki góor yàlla nga tànn li wét li ji leen borom saam mag ñi fi neen sëñ Tuubaa di ku mën a merci merci sëñ Amadou Soxna Mbacke mi commercial dem naa ba siyaare xabrom ba ca Sibisoor sëñ Amadou Soxna Mbacke nga xam ne mbokkum sëñ Touba la sëñ Touba ko tànn na commercial borom saam sëñ Amadou Soxna moo doon na jaay sëñ Mbacke Ramata mi ak kon loolu dama ko doon mosol gaay ñu xam pincum ñu xam maam borom saam mooy kan ndax borom pinc mii kii ñu waxtaanee kat léppam da doon sëñ Mor Diarra sëñ Mor Diarra laan doon sëñ Mor Diarra la joxoon boppam moom la tërbiwu lépp sëñ Mor Diarra ko defal. kon bu ñu koy waxtaanee wala ñu tudd sëriñam ba nag sëñ Mor Diarra radiyallahu taala anhu yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadin irham jami al wara yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadin irham jami al wara